maaleykum yéen ñi nga xamante ni da ngeen di faral di seetlu dañuy woo dañuy faral di ci 76 349 24 99 képp ku ñu ci maam jël si àll bi. kii nag mooy mbëtt pour ñu ko xamul. moom mi moom mi li ci nekk ci ay surlu li suñu borom daa jër maanaam surlu ci biir surlu. dugal ko ci biir mbëtt mi. moom waaw lañ ci xëy di man di wax soo ba ngoon. Mm-hmm. du jeex. Mm-hmm. benn rek laa ñu ñëw lu mel ne eh, génn mbëtt gi ngeen gis nii mm-hmm. mën nañ cee liggéey ci wàllum kàttan pour góor ñi am ay une seconde ak vingt quatre secondes ak un virgule quatre secondes nañ cee jox yoo xamante ni maanaam ba faa i datan ba keroog addunay tukki mooy loolu ba ci làmmiñ bii ngay gis ni ñu mënta am doom ñu mënta am doom man nañ leen cee carrière loo xamante ni maanaam bul xam gis nga suñ suñ kilo lii nii mooy mooy mooy bant bi dama koy wutaale ko bant bi nii ngay gis nii moo mooy mooy séngu ñu bëri am na ci àll bi bant bi ñu yor luy dem ñi nga xam ne ab xale buy dem wala ñiy yor soxna du ba ci ba ci ba ci bant bii ngay gis moom lañ naan séng kii nii ñi nga xam ne moo aay ci ñi ñuy dem ñi nga xamante ni kenn mun leen a kii da nga yor jabar muy dem wala yor ndongo bu ndaw buy dem uhuh. xeet gi gineen bu ñu ci defee li ñu ci def boo ko suulee ci kër wala sax jigéen ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy fàq dañuy fàq di dem uhuh. xam nga léegi heure boo digloo maanaam ressources yooyu ñu naan nangam dafa dem ñetti nañ wala jigéen dem na ba ma leen kenn gisatu uhuh. bant bii nii lu mu ci mënul amut. mooy solution bi. barke maam Cheikh Ibrahima Fall lu mu ci mënul amut. boo ko ci defar jeex na kurus gaa yi nii loolu moom. àggale bi ko yóbbu YouTube. YouTube dañ ko yóbbu YouTube waaw dañ ko eggale ku bëgg xam fin bi rek. ay njariñ a wax du jeex. <laughs> jërë nga jëf. waaw salaamaaleykum tey nag dañoo ñëwoon am benn secret bu ñu leen leeral muy pour ñi nga xamante ni ñoo jékki-jékki rek nit néew ko leen rek ñu jékki-jékki def ko loo xamante ni ay mbiram lépp taxaw mu jeex jeex dootul am sentiment ci boppam dootul mën a liggéey ay mbiram tëju fu mu jëm mu yàqu li ko waral lépp càngat gi nii ñuy gis ni ñu koy càngat gi li ñuy baxal lay doon li ñuy sangoo lay doon loo xamante ni lépp soo xamante ni jëfeñ ko woo lépp lu la ci masara dina dem ci kàttanu yàlla waaw kay càngat goo ngeen gis noonu looloo ko waral waaw kay ñu ngi 76 349 24 99 koo jëlee nga bàyyi ko message baxal lay doon lépp lu mas a fekk seeram ne ko raxas ba mu set waaw may gis ñoo xamante ni mu jékki jekk yàq seen ordre ci te ci luñ dara mi ngi noonu dangar la koo xamante ni daal gis ngeen xorom si moo nekk noonu ku ko raxas ku ko sangoo lépp lu mas a fekk ci yow xorom soos la lépp lu mas a fekk ci yow dañu ko dindi ci kàttanu yàlla ñu leen si yàlla waaw bu dee li ngeen jëlee maanaam di ak raxas yaram gu yéeme ñi nga xam ne seen yaram cat dafay nekk ba mun ñoo réaliser dara wala ñu am xeeti jafe-jafe yu bari ñii lay àndal lu yéeme yi nga xamante ni yaram ñu ko mën def ci lu garaaw garaaw la ko dund moom set 76 349 24 99 képp soxla juróom ñaar xal yi lay àndal nag boo leen ko gisee mooy li nga xamante ni nit ñi dañuy am cat ba xam lu nekk seen moo du dañ ba lu ñu jóotu rek mu am ay gàllankoor lii nag lu baxal lay doon lu yéeme lay doon baxal boo xam ne bis ko sangoo lépp lu mës a nekk sa yaram day raaf lu mu mën di doon day génn ak liggéey bi nga mën def ak loolu waaye mën di jàpp day dañ lu ñuy baxal lay doon ba mu bax sangoo ko képp ku aajo 76 349 24 99 am na ay càggat ak ay mbir yu muy àndal. ubbeeku ubbeeku gu kéemaan yi ngi nii képp koo bëgg rek nañu woo ci 76 ngi noonu su nga fi doy waar ngi nii su nga fi ubbeekaay yu doy waar mu dee suuf juróom-ñaari dex yu bokkut la waaw kay juróom-ñaari dex yu bokkut bu dee bii tamit juróom-ñaari toppi sunguf la. waaw lu gën a jafe xamante ni minute bi mën na ngaa wër at doog a gis garab gu sax ci kaw garab te duñ bokk ñoom ñaar mi ngi noonu ku soxla soixante-seize trois cent quarante-neuf vingt-quatre quatre-vingt-dix-neuf mi ngi noonu de. Ah, sëñ Njaañ tey loo indil. waaw tey jii nag moom bayre lañ leen indil fan yi den ngeen gis ñoo yéen ci ay wàllu ubbeekook ay kaaraange mais chaque jour. day am lu ñuy indi tey nag ñu ngi indi bayra bayra nag bu ñu ko waxee ñu ngi indi bayra amarum nu xay ku nekk xamoon na ko ci jamono njëkk yi wala ñuy gëstukat yi waaye sama bokk seen si xam nañu amarum nu xay si amarum xay si nag ku yàlla mayoon la wàllum bayra surtout maanaam bayra jigéen te jamono jikko dafa bari ñuy jàmmal lool naa ñu ay bayra jigéen nag wala nit ñu jubbu wuñ leen nag fu ñu jublu nit ñi bàyyi leen fa ak yu bari bii nii moo leen di tàqale ak moom bii nii bayra bu yéeme boo xam ne day dox ci bayra ak kaaraange ak muslaay surtout maa ñi nga xam ne daanay faral di xam rek réew mi léegi dafa jaxasoo ñu bëri dañ lay wax naan la ay bayre jigéen laa bëgg ak wala bayre boo xam ne nit ñi dañ may sopp wala ñu may bëgg mais bii nii ku amul kaaraange sax wóoroo kaa jël bayre bii ndax bayre bu doy waar la boo xamante ni képp koo ku xam amurum na xaysa xamoon ko ku yàlla mayoon na ci wàllum kàttan ak wàllum jigéen mayoon na ko ci loo xamante ni néewaan na ñu ko mayoon ba nag moo nekk nii nii képp koo xamante ni tamit soxla nga ko mën nga ñëw woo ci 76 349 24 99 boo ñu jot naa noo ñu bàyyi message ci whatsapp bi incha allah rabbi jërëjëf